أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi ci suratul baqara ci kàttanu borom bi ñu ngi jël tey aaya 189 mu nekk benn aaya bu ñu sunu borom subhaanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk an yasalal mar'a amma yanfauhu wa yatruku sual amma la yan amma la yanihi bokk na ci li ñuy jëlee ci aaya bi mooy yoonal nañ doomu aadama muy laaj lu ko amal njëriñ muy noppi ci lépp loo xam ne yitteelu ko amalu ko njëriñ amalu ko importance kon dañu bëgg cib jullit ci wàllu diineem muy laaj yàlla subhaanahu wa taala dafa yoonal laajte ci diine ku xamul laajal fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun laaj leen ñi xam su fekkee xamu leen kon yoonal nañ ci diine bokk na ci li ñuy jàng ci aaya bi mooy ku xamul day laaj waaye ba tey yoonal nañ ne kii laajte na laaj lu ko amal njëriñ ci lislaam bëgguñu nit di laaj lu amul benn importance amul benn fulla amul benn faayda kenn du ci yokk kenn du ci jële dara benn waay ñëw na ci imaam ahmad rahimahullah mu fekk imaam toog ci jàkka ji jàkkaarloog ndongo yi di leen jàngal waa ji ne ko imaam xam naa su may julli fan laay jublu xam naa fu may jubal sama xar kanam bi parce que julli moom du wér lu dul rek doomu aadama jublu xibla kon boobu moom leer na kon laajuma loolu imaam ne ko looy laaj mu ne su ma demee géej simmeeku di sangu sama xar kanam bi fan laa koy jubal imaam ne ko li gën daal mooy nga xool fi nga simmi say yére balaa ñu koy sàcc nga ñibbee yaramu neen kon jullit day laaj lu am importance xam naa dem géej may sangu fan laay jubal sama kanam yooyu moom wax dëgg yàlla léeg-léeg nga dégg ku ne fan la arche nekk kursi yi nu mel yooyu amulul jullit njëriñ du yokk sa diine du ko wàññi booy laaj laajal luy yàq sa diine lu lay dugal safara nga moytandiku lu lay dugal aljanna pour nga taq ci kon yoonal nañ ci jullit muy laaj lu ko amal njëriñ wa yatruku sual amma la yaanihi mu bàyyi laaj loo xam ne amalu ko benn njëriñ loolu moo tax ngeen dégg yonent bi ne min husni islaami almari tarkuhu ma la yaanihi bokk na ci li rafetal islaamu nit mu bàyyi lu yoonam nekkul ñaareel faidatu suhuur njëriñu weer yi weer wi alqamariya weer wi nga xam ne moom mooy weer wi ñuy jaamoo yàlla ci lislaam jullit ñi seen jaamu yàlla dépendrul ci jant bi waaye mi ngi dépendre ci weer wi ci lislaam moo tax weer wi ñun def ñu amal njëriñ dañ ko war a takk di ko topp gis ngeen bokk na tey ci problème yi jullit yi am du ma wax sax julliti àddina bi waaye julliti Sénégal bokk na ci problème yi gën a rëy yi ñu am mooy du ñu topp weer wi calendrier tubaab bi lañ topp fàtte seen bos tey soo doon laaj fi ñu toog tey la lan ci ci islaam ban weer lañ toll ci ban bis lañ toll ñu bëri duñ ko xam waaye boo ne woon tey la lan ci calendrier tubaab ñu lay tontu tey la lan tey la 28 avril 2012 ci lislaam tey la lan ah dégg naa 5 dégg naa 6 dégg naa 7 dégg ngeen sànq kii bi bi ñu laajee rek dafa dóor mu daanu wala bi ñu laajee sànq bu lislaam bi rek dégg nga 5 6 7 dégg nga waaw mooy duñ ko topp ci ban weer jumaadu saani ci ban année ci ban année gars yi gis ngeen nañuy topp weer wi parce que moo ñu amal njëriñ moom mooy suñu diine ci la lépp lu ñuy def ci wàllu lislaam ci weer wi la du ci jant bi te buñ ñëwee ci kanam incha allah di ngeen ko dégg faidatu suhur njëriñu weer wi alqamariya azima njëriñam dafa màgg torop isbaha taarifu kasirun min al ibadat ci weer wi la ñuy xamee ibadat yi ci weer wi lañ koy xamee mbooleem ibaadaat yi loolu moo tax ñu war a góorgóorlu pour ñu mun a xam sunu jaamu yàlla mbokk yi jigéen suy tënj du tënd ci calendrier tubaab yi tabaski ak korité dépendrul ci calendrier tubaab yi ak màkka dépendrul ci calendrier tubaab bi kon sunu bépp jaamu yàlla mi ngi am ci weer wi dépendrul ci jant bi kon dafa laaj bu fekkee ne ñun sunu jaamu yàlla fii la aju dafa laaj ñu xam ko dafa laaj ñu koy topp bis par bis gis nga tey bu fekkoon ne 12 millions sénégalais yi ñu ngi topp weer wi kon du ñu am problème weer duñ ko am ñu ngi topp bés bi topp weer wi di ko xam di ko saytu di ko natt fu mu toll kon duñu am benn problème ci woor ak woreek tabaskeek nangam ak nangam ak nangam ñett mooy xurmatu dafa xaraam al ibtidaau fi diin sos ci diine dafa xaraam léeg-léeg nit ñi am lu ñu xalaat walla am lu ñu lu ñu lu ñu rafetlu rekk nga gis ñu ne ko paccax ci biir diine loolu moo tax tey gis nga diine ji dem dem dem dem ba kenn xamatul sunna lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon lu tax ndax mbedd moo romb ñu jox la boroom xam-xam boo ziyaare ji mu jox la sa ñoom papa dañ lay jox sa ñoom maam dañ lay jox ñoom diw dañ lay jox ñoom sàmba di la jox ñoom yara jox la foo jëm dinañ xam léegi ci aaya yi bii di ñëw suñu kanam sos ci diine ni mu bonee sa xel rafetlu dara rek léegi koo xam ne xelam moo rafetlu dara rek misaal bu ñuy tudd ngénte ngénte ngénte nga gis waa ji ne non dama bëgg incha allah imaam bu ngeen xëyee suba ah ma yéexal tudd bi tuuti ngeen wàcceel ma kaamil ci tudd bi ko defee ñu jàng alxuraan ba pare ma doog a tudd loolu rafet na wala rafetul fi na trop waaye du diine bokk ci ci ngeen rafetee mais bokk ci bu doon rafet na yonent bi def ko bu baaxoon yonent bi def ko ndax yonent bi nit bëgg na ko gën na ko bëgg tiyaaba ah ndax nit bëgg na ko gën na ko bëgg tiyaaba ndax nit gën na koo xam abadan tontu bi muy déet kon nekkul na ñun jullit yi lu rafet lu suñu bopp rek lu ñëw suñu bopp yi rafet rek ñu dóor mu daanu déedéet diine dafa am yoon diine dafa am yoon dafa am aw tëralin aw aw doxini nekkul rek lu ñëw sa bopp nga def ci boobu rek laa ñemee yema am na yeneen ak yeneen yoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy def guddeeg bëccëg ñu ngi koy def te loolu yàlla yoonalu ci dara doo ci am benn tiyaaba boo ko defee parce que da ngaa dugal ci diine bi lu ci bokk kon dafa araam mu ne walaw kaana bi raghbatin fi taatillah donte ne yow mi ngi koy def da nga ko def ngir bëgg topp yàlla kenn du def dara kenn du def dara lu dul yow li nga ko bi nga koy def da nga ci bëgg tiyaaba bi nga koy def da nga ci bëgg tiyaaba mooy loolu ma wax sànq ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci dëkk bi bëri trop ñi koy def soo leen ne waayoon sax ngeen def loolu ñu ne la dañ cee yaakaar tiyaaba ndax wax dëgg yàlla suñu xel nangu na ko te rafet na waaye bokkul ci diine bi nekk lu suñu xel rafetlu rek ñu dugal ko ci diine bi bu doon loolu la moo tax tey diine bi ëpp moo tax diine bi ëpp dem di déborder di dem parce que ku indi imagine leen ñun ñi ci jàkka ji ku nekk tey bu fekkoon dafa am lu ñëw sa xel rek nga ni naa ko dugal ci diine bi fu ñu jëm misaal nga ni ah timis daal ñetti rakk dafa tuuti dafa tuuti dañ ko def fukk fu ñu jëm keneen ñëw ne ah da ngay jéem a jaay yow di nga xam ne maa la gën a dee fukk ngay julli 40 laa julli man keneen ne yéen mënu leen fu ñu jëm kon keneen ñëw ne suba def ko 10 30 kon mbir mi dafa am fu ñu ko tënk am fu ñu ko yeew am ku ko jàngale def ko wane ko saxaaba yi dund ko mu dem bàyyi ñoo moom ñun amuñu droit def ci amuñu droit bàyyi li yonent bi jàngale kese kese kese nañ am nañ yem foofu kon dafa araam sos ci diine doonte ne danga cee jublu topp yàlla wal xusulul ajr ak am tiyaaba dafa araam ñeenteel mooy al amru bi taqwa yàlla daf ñu digal nañ ko ragal mbokk yi jullit day ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy defal lum la sant bàyyi lum la tere loolu mooy ragal yàlla yàlla nag daf ñu ko sant mbooleem aaya yi ci alquran yépp dañuy digal mooy ragal yàlla mbooleem jaamu yàlla yi ñuy def lan la ñuy sant ragal yàlla julli ragal yàlla koor ragal yàlla joxe azaka ragal yàlla aj màkk ragal yàlla la ñuy jural jàng alquran ragal yàlla la ñuy jural lépp lu ñu jàng ci ay aaya da ngay gis fu muy teere mooy laallakum tattaqun ya ayuha nnas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum yi nga ibaada la wax foofu jaamu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum koor la ja ibaada la hajj aj fatazawadu fa inna xayra zaadi taqwa tabaski lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa gis nga xataa jël alquran xuzu ma aataynaakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum tattaqun buñ ko doon lim duñ fi jóge aaya yépp taqwa la ñuy jàngale kon yàlla dafa bëgg ñu ragal ko kon ñeenti atte yii ñeenti mbir yii moom mooy darsu tey bi ci benn aaya la ko sunu borom subhanahu wa taala wax muy aaya 189 ci suratul baqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون sunu borom subhanahu wa taala mu ne jëlee nañ ci yenn nenn ci saxaaba ridwanullahi alayhim yàlla na kontaan te yàlla nekk ci ñoom lenn ci saxaaba saalu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaa'iliin laaj nañ yonent bi ñu ne ko maa baalul xilaali yabdu daqiqan summa yaziidu xatta ya'zam wa yusbixu badran waaw weer wi luy mbiram maa baalul xilaal luy weer luy mbiru weer wi buy feeñ premier jour deuxième jour troisième jour day sew ruuj après muy dem di yokk di yokk di yokk bëri lu waral loolu sunu borom subhanahu wa taala daal di wàcc aaya bi fa anzala allahu hazihi l aaya aaya bi daal di wàcc mu tàmbalee ci laaj te mooy yasalunaka sunu borom subhanahu wa taala mu ne yasalunaka gaañaa ngi lay laaj jàngoon nañ ñaari passé ay aaya yu tàmbalee yasalunaka ah jàngoon nañ yasalunaka ah jàng nañ ñaari yasalunaka yu ñu passé bi mooy ñett ñaari ban ak ban la la ilaha illa allah il faut ñu ubbi téere yi yasalunaka beneen bi mu nga bii mooy ñetteelu tey yasalunaka bi ci ci suratul baqara mu ne yasalunaka gaañaa ngi lay laaj anil ahillati mbiru weer wi jamu hilaal wa huwa alqamar su su nekkee bu sew premier jour deuxième jour troisième foofu mu tudd mu sew foofu mu nekk sew foofu la tudd xilaal su demee ba roo ngand xamar lay tudd am na fu muy tudd badr am na fu muy tudd ah mooy nekk badr foofu la ñuy war ayaamul biid le treize le quatorze le quinze foofu dañ koy woor yonent bi daf ko joxe ndigal mu ne na ngeen ko woor bu amee 13 14 15 foofu muy ron ba ngand ci kaw foofu dañ koy woor mu ne gaañaa ngi lay laaj mbiru weer wi fi bidayati zuhurihi ci ni muy feeñee fi salaasati ayam al ula ci bis yu njëkk yi min ashahri ci weer wi li anna annaas ida raawhu rafau aswaatahum alhilaal alhilaal alhilaal mu ne gis nga premier jour gis nga tey bu ñu doon séentu weer suba ñu war a def benn jaamu yàlla suñ ne suñ ne weer waa ngi ne luy xew ci dëkk bi da ngay dégg yuuxu yi ñépp naan weer waa ngi nii weer waa ngi nii foofu lay tudd xilaal foofu la yàlla ne yasalunaka gaañaa ngi lay laaj anil ahillati ci mbiru weer wi qul waxal yow muhammad gis ngeen lii moo leen di wane alquran du waxu yonent bi lii moo leen di wane waxu yàlla la beneen lii moo leen di wan ni bu ñu laajee yonent bi amul droit tontu lu dul sunu borom jox ko ndigal ne ko tontul yàlla moo ko xamal ne ko gaañaa ngi lay laaj mu ne teg ba réponse ñëw mu ne ko xul waxal wane wu ci boppam kon moom mbir mi da cee effacé wu gaa yi ñoo la laaj waxal nekk fa naan waaw bu ngeen ma laajee ma tontu ma ne alxuraan amul mane fi yonent bi ne mane qul aouzu bi rabbil falaq gis nga qul aouzu bi rabbin nas qul huwa allah qul ya ayyuha alkafirun qul uhiya ilayya yépp yàlla da ko ne waxal waxal waxal kon du mbiram mbiru yàlla la ndax ay atte la yow diine bi amoo droit di ci def dara lu dul la yàlla wax mu ne ko qul waxal hiya moom weer woowu ngeen di laaj mawaqiitu linnaas heure la boo xam ne day day day wan nit ñi waxtu jaamu yàlla yi mawaqiit jamu miqaat al waxtu al waqt al mahdud al maalum waxtu la leen di wan bu ngeen war a jaamu yàlla waaye daf leen di wan weer deena da ngeen war a fayee wala dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem weer dee na daf leen di won aussi ne weer wi dem na weer wi moo ci tegu weer wi dem na weer wi moo ci tegu lii ngeen war a def ci weer wi dafa am weeru koor lu tax wooru leen léegi nii parce que yéen ngi yéen a ngi ci jumaa du saan yi kenn ñemewul woor ku woor léegi ne dama koy anticiper saw mu ko baatil sa koor caaxaan la il faut ramadan rek ngay woor pour nga am tiyaaba weer wi parce que weer woowu la yàlla woorloo nit ñi woorloowul beneen weer mu nekk farat aj dafa am zulhijja gis nga noonu sax lañ ko tuddee weeru aj kenn ñemewul aji heure bii dafa am weeru tënj fu muy tàmbalee ay weeram jullit bu borom këram faatoo bu jigéen ñaata weer lay tënj ñeenti weer ak fukki fan bu dee gor bu dee gor bu dee jaam deux mois cinq jours lépp lu sang di def mu mat gor genn wàll gi lay def ah jaam su ko defee ngeen xam jamono téeñ ji ñeenti weer ak fukki fan ngeen xam weeru tabaski ban weer ngeen di tabaski ngeen xam weeru aj ngeen xam weeru koor ngeen xam weeru tamxarit ngeen xam weeru hein wax naa ko yii rek ngeen xam jaamu yàlla yi lii kese la li ñuy def ci weer yi hmm weeru tabaski wax naa ko beneen weer ngeen xam idda idda idda bu ñu fasee jigéen yooyu tamit ci calendrier islam bi lañ koy xam kenn du ko tënk ci calendrier tubaab calendrier tubaab amul lu ñu ciy def pour jaamu yàlla ñun suñu jaamu yàlla yëpp mu ngi aju ci calendrier islam léegi nag bu ñu xamul calendrier l'islam fu ñu jëm moo tax da ngay gis ku war rek waaw ñun de suñu papa oustaz suñu papa heure bii la dee woon léegi nu nu muy demee noonu nu muy demee noonu munoo ko woon takk bis bi mu faatoo nga xam que date bi nga bind ko mais lenn sax moo gën a dee ci ci ci Sénégal lenn moo gën a graaw mooy calendrier islam bëriwu fi soo doon dugg fukki kër benn kër ngay fekk ñu am calendrier l'islam benn kër loolu musiba la loolu moo ñuy indil problème moo tax ñuy werante ci weeru koor di werante ci tabaski di werante ci tamxarit bu ñuy defee tey ñuy def suba ñuy def ginnaaw suba parce que du ñu topp weer wi est-ce que ñun mun nañoo yem ak réew yi nga xam ne ci calendrier boobu la ñuy dund 24 heures sur 24 mun nañu yem ak ñoom tontu bi mooy déedéet est-ce que mun nañ leen gën a xam ñun weer wi mukk te pourtant ci cosaan ci Sénégal fii amoon na mag ñoo xam ne dañuy topp weer wi ba wax la ne weer wi démb la xëy topp ko amoon na mais gis nga xam-xam yooyu dafa dem c'est parce que nit ñi dañoo bëgg lu yomb lii nag ñun waruñu waruñu ko sàggane c'est parce que dafa aju ci suñu wàllu diine gis nga mu ngi nii di ko laaj yonent bi yàlla subhanahu wa taala di tontu mu ne yasalunaka gaañaa ngi lay laaj anil ahillati gaa weer wi mbiru weer wi jëlal kaamil anil ahillati mbiru weer wi mu ne qul tontul hiya moom mawaaqiitu ay ay waxtu la ah ay waxtu gis ngeen ci julli sunu borom subhanahu wa taala bi muy wax julli dañ ko faraatal lu mu wax inna salata kaanat alal muminina kitaaban mawqut waxtu dafa am heure même julli amuñu droit rek julli lu dul waxtu wi dafa jot gis nga même même même baat miqaat ak aaya ba la fi lay mu ne mawqut benn la loolu mooy waxtu heure la boo xam ne dañ koo xam su ci jotee rek su heure bi jotee su weer wi jotee jaamu yàlla bi dañ koo war a def heure aj lañ nekk lan la ñuy def dañu war a aji heure koor lañ war a def lan lañ war a def dañu war a heure tabaski lañ jot dañoo war a jeex na ndaw si waxtu ténj la nekk dafa war a ténj jigéen bi waxtu idda la nekk dafa war a iddawu ba mu mat su fekkee nag yi xamuñu ko daf ñu indil ay jafe-jafe comme tey ni ñu amee jafe-jafe suñu wàllu diine mu ne wal hajj gis nga ngeen xam ci nu ngeen di ajee xul hiya na nga leen wax hiya moom mawaaqiitun lu ñu utal ay waxtu la linnaas ñeel nit ñi wal hajj encore ñu xam nu ñuy aji jee ñu xam période ban weer lañu war a aji loolu lañu sunu borom subhanahu wa taala wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko tontu nit ñi ndax loolu kese la mu ñëw ci jël dara rafetlu ko sa xel dugal ko ci diine ci balaa lislaam bi ñëw ceddo yi suñ nee ceddo mooy nit ku amul diine vendredi bi passé non jeudi ci guddi damay damay suivre benn émission bu tudd diine ak jamono am benn waay biñ ko joxee mu war a wax muy wax problème yi waa Sénégal nekkee mu ne sénégalais yi li tax seen mbir mënta baax mu ne dañoo am ñetti jikko mu ne dañoo am jikko islaam jikko ceddo jikko tubaab mu ne boo leen bëggee jàpp ci jikko tubaab bi ñu daw simmeeku indil la jikko islaam nga bëgg leen jàpp ñu simmeeku indil la jikko ceddo nga ñëw ci jikko ceddo bi bëgg leen jàpp ñu daw bàyyi la indil la beneen jikko bi te wax na dëgg ñetti jikko yooyu lañ boole ñun jikko ceddo jikko tubaab jikko islaam ba pare di wër-wërloo nag yooyu yëpp nag du baax is jullit moom benn jikko rek la yam mooy jikko lislaam ñaari jikko yee foog ñu bàyyi ko mooy jikko ceddo mooy jikko tubaab yonent bi lan la fekk lan la alxuraan fekk ay nit yoo xam ne bu ñu armalee te boobu avant l'islam de kon nit ñaa ngi doon aj néeg bi parce que néeg bi moo fi jiitu yonent yàlla muhammad bu ñu armalee doon aji te seen façon aj bañ daan aj ba nga xam ne Ibrahima ko indi woon mais yàq nañ ko suñu xasee armal génn seen kër jaar ci bunt bi bu ñuy ñëwaat duñ jaar ci buntu kër gi dañuy tëb miir bi wala ñu jaar ci fenêtre bi bu dee sàkket la ñu bënn sàkket bi dugg ñenn ñi layee ne buntu kër gi ñi am bàkkaar ñëpp fii lañ jaar kon bu ma fi jaaree bàkkaar yi daf may taq ñenn ñi layee ne jigéen ñi gis mbaax fii lañ jaar ñenn ñi layee ne kii bii ci kaw transversal bii ci kaw duma tiim ndax daa tiim ay moykatu yàlla te man fi mu nekk sangu ji naa ba set loolu ñoo ñu wax rafet na wala rafetul ak rafet du ma jaar yoon bu am bàkkaar lu ñu lu loo xam ne tiim ne defkatu bàkkaar du ma tiim loo xam ne ku am sobe jaar na fi du ma fi jaar loolu ak rafet waaye xoolal yàlla da leen ne lii moom du diine yàlla daf leen ko tere automatiquement ne leen lii du diine moo tax du du ñu jël rek ñun duñ nekk fi ñun waa Sénégal rek lu ñu rafetlu suñu bopp rek suba bu ñu xëyee daal di koy dugal ci diine bi lu ñu rafetlu waaw rafetlu rek nga xëy indi waaw lii nag nga ne waaw lii lu ci nekk fi mu nekk nii ñooñu bu yàlla waxul woon ne li ñuy def dafa bon kan moo ñeme ne li ñuy def dafa bon tey boo fekkee benn waaye di ngénte imaam ñëwagul nga ñëw fekk ci tudd bi ku nekk yor jukki alxuraan di jàng ñu ne bu ñu paree tudd nga ñëw ne ko waa yow lu tax nga def lii lii nga def baaxul de danaa lu mu lay wax lu ci nekk ah nii rek ngeen mel li lii ah léegi alxuraan daa araam déedéet waxuñu jàng alxuraan dafa araam waaye fi nga ko jànge ak ni nga ko jàngalee du noonu yonent bi saa salaam musul tudd doom daal di tas jukki kaamil ne nañ ko jàng mooy comme léegi lu ñuy def rek bàyyi suñu demee nit faatu na mu ngi ci morgue bi ñuy sangu ci biir jumaa ji ñuy wàcc alxuraan wala bu ñu demee ba ñëw wala bu amee 40 jours wala bu amee at wala bu amee wala anniversaire am chaque jour bu ñëwee rek ñu dajaloo ne dañuy wàcceel paa bi kaamil xam nga moom bon bis bi la gaañoo ñëwaat na loolu fan lañ ko jëlee est-ce que yonent bi moo ko doon def est-ce que saxaaba yi ñoo ko doon jàngale waxuñu jàng alxuraan dafa bon déedéet waaye ni nga ko defee yonent bi jàngale ko loolu mooy bidaa gis nga ñii dañoo sos ci diine lu ci bokkul yàlla ne leen baaxul. aaya baa ngi nii sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa laysa nekkul albirru baax bi an taatul buyuuta ngeen di dikke néegi min zuhuriha ci kawam mbaax bëgg yàlla bëgg diine am lislaam yaru déedéet nekkul ci an bi an taatul buyuuta ngeen di dikke kër yi néegi min zuhuriha ci kawam nga aj rek wala nga dem màkka ñëwaat rek wala nga dem jàkk ñëwaat rek daal ne du ma jaar ci buntu kër gi ñu ñu daal lay teggil benn ardoise nga daal di jaaj wala ñu fëqal la sàkket bi nga dugg ñu ne lu tax doo jaar ci buntu kër gi nga ne buntu kër gi ñi ñuy def bàkkaar ñoo fa jaar te man fi ma nekk nii set naa pourtant ñoom li ñu wax rafet na trop mais xoolal yàlla daf koo dàq dafa ne wa laysal bir mbaax nekkul bi antaatul buyuta ngeen dikke néegi min zuhuriha ci kawam Omar ibnul Xattaab ni mu jiitee remplacé Aboubacar xam ngeen ne moom jamonoom jamono bu nit ñi dundoon diine à la lettre la nit ñi dañoo tegu woon ci raay bi cëg lu tax parce que yaram la yoroon bu guddee muy muy surveiller bëccëg muy surveiller ba kenn mënta def ci diine ji ci dëkk bi lu dul yoon am benn waay boo xam ne dafa organise soirée soirée biir këram ay góor ak jigéen di tëgg ak fecc yor sàngaraam di naan Omar di dox di dox ba dégg ay bruit mu ne waaw lii la la xaaral Omar daal di yéeg kër gi yéeg jaarul ci bunt bi de dafa yéeg fëggul dafa yéeg jékki-jékki rek ne cëpp seen kanam taxaw ah jàpp naa leen nag yéen jàpp naa leen yéen ñëpp tey ngeen dee waa ji ne ko lan lañ def ci organisé woon soirée bi ne ko lan lañ def mu ne lu araam lii ngeen fi nekkee waa ji ne ko ñun benn bu araam lañ def yow def nga ñett mu ne yéen ñett laa def mu ne ko yàlla dana wala tajassasu bu leen espionné yow da nga ñu espionné ba nga xam li ñu nekkee te yàlla da koy tere da nga ñu espionné mooy yëddu da nga ñëw di xool di xool di xool ba gis li ñuy def mu ne ban beneen loo bu araam laa def lan la tontu lu waa ji tontu danga danga dugg ci kër gi te yëg lu wuloo te dañ ne bu ngeen di dugg seen kër al istizan na ngeen yëglu asalaamualeykum mu ne ko Omar bi ngay dugg yëglu woo bàyyi nga ñaar bàyyi nga beneen aaya alxuraan ñaar mu ne ñetteel mu ne yàlla ne bu ngeen dugg ci kër gi jaar leen ci bunt kër gi foo jaar Omar daal di jël yaram ñibbi mu bàyyi ba fajar jot waa ji moom it ne ah tey ma dee de man de Omar dana ma rey kii xam naa moom du wax dara waaye day bàyyi ba fajar jot waa ji daal di mujj mujjelu ba jumaa ji fees mu julli dernière sàppe bi muy sëlmal ba nga génn rek Omar séen ko ne ko diw mu ne mu ne kaay ñëw Omar daal di ko yóbbu ci ruq mi ne ko li li xewoon démb ci guddi mu ne ah mu ne man ak yow ak yàlla kese ñoo ko yëg ku ko yëg rek yaa ko wax noppil ma noppi waa ji ñibbi Omar jàpp njàmburam gis ngeen ñoom ndeke ñoom nii lañ meloon mooy yàlla dafa tere nit di dugg ci kër te jaaroo ci bunt bi loolu tamit dañuy dégg amoo droit ñëw ci këru jàmbur di fa régler problème te jaaroo te jaaro ci borom kër gi waatul buyuta min abwaabiha jaar leen ci buntu kër yi kër gi kay ki ko fi defar soo ñëwee di rek la dara léeg-léeg nga gis kuy takk jabar ñoo romb paa bi dem ci meer bi jaaduwul kër kay dara na su lu dul wax nañ ba kii léegi nag ñu ne ñoo gis waaw waaw nga ne man kay ñëwoon naa fi keroog sax ñëw naa ci meer bi bu fekkee paa bu am fulla nag daa ñëwoon nga ci maire bi ah maire bi de du maye jabar man maay maye problème commencé ñu naan paa bi nii la paa bi naa la fekk paa bi dañ koo tooñ boobu nag laa ñemee wax am na yeneen ak yeneen yu ci nekk kër dafa am base lépp luy diine ci loolu lañ war a samp ci loolu lañ war a taxaw sunu boroom subhanahu wa taala mu ne walaysa nekkul albirra mbaax bi an taatul buyuuta ngeen di dikke kër yi néeg yi min zuhuriha ci kaw ityaanul buyut min zuhuriha ay an yastarul jidaar mooy nga fëq miir bi wala dajji sàkket wala wala wala wala ngir di gaaflu di gaaflu naan léegi armal naa duma jaar ci buntu kër gi yàlla mu ne walakinnal birra waaye mbaax mokk man ittaqa mooy ku ragal yàlla boo ragalee yàlla fu la neex jaar gis nga même yére biñ koy sol yàlla mu ne sol leen yére ragal yàlla wa libaasu taqwa zalika xayr même yére sax mu ne yére ragal yàlla moo gën yére boo xam ne da nga ko sol nii bu fekkee da ngaa sol xamis bu weex tal tal tal wala nga sol grand bu weex tal kaala amaamaw te yow ragaloo yàlla amul benn njëriñ waa ji sol pantalon fekk mi ngi ragal yàlla moom moo la gën kon du yére bi waaye jëf ji la walakin al birra waaye mbaax man ittaqa mooy ku ragal yàlla Sénégal nag ñoom ku mën a maye xaalis rek xatta boo dul julli yow ku baax nga wala buñ doon cotiser jàkka waa ji joxe ci cent mille te du ñëw du julli si ku baax la wala bu ñu doon organiser ay jàng waa ji joxe ci deux cent mille wala mu jënd nag bi te gëmul yàlla bu baax la gis nga ñun sunuy nattukaay ñun suñu nattukaay mooy yii ñu gis ci alalu àdduna ku koy def rek ku ciy joxe wala nangam ak nangam ku baax la yàlla dafa ne walakin al birra waaye mbaax man ittaqa mooy ku ragal yàlla ku ragal yàlla mooy ku baax booy wër ku baax yàlla nee na la mooy man ittaqa mooy ku ragal yàlla yàlla mu ne waa aatul buyuuta dikke leen kër yi dikke leen néeg yi min abwaabiha ca buntu ya bu ngeen di dugg ci kër jaar leen ci buntu bi wa atul buyuta dikke leen kër yi min abwaabiha ca buntu ya gis ngeen la daloon Umar te pourtant mooy amirul muminin de munoon na ne waa ji may wax ngay wax en tant que président te yow xam nga ne ci lu bon nga nekk yar yi commencé dal wala moo garde corps yi ne takk leen waa ji yóbbu waaye ñoom xam nga nu ñu meloon mooy fu ñu dégg dëgg jël jiite wu ñu woon nit ñi ci yor yar di leen ëpp doole di def lu leen neex jiite wu ñu woon nit ñi ci maa tey xoolal Ali ibnu Abi Talib sàcc na benn waaye dëkkandoom sàcc na mbubbam mbubbu geer Ali di wër di wër ba gis mbub mi ci waa ji daan ne ko mbub mi maa ko moom mu ne ko moomoo ko sama mbubb la Ali daal di yóbbu waa ji ci àttekat bi te mooy amirul muminin mu yóbbu waa ji ci àttekat bi àttekat bi ne ko lan la mu ne ko sama mbubb la waa ji sàcc mu ne waa bàyyeen ba bisu àjjuma ngeen ñëw ñu julli àjjuma ba pare mbooloo mi yow ñëpp ñëw toog ali toog waa ji toog ñëpp ñëw ki àtte ne ali kaay mu ñëw taxaw mu ne yaa moom mbubb bi mu ne waa ana sa seede mu ne ana useynu àttekat bi ne ko doom koy du sa seede doom motul seede kii sa doom la gis ngeen amirul muminin de amirul muminin moo tax dañuy wax rek sunu àdduna bi dootul jag parce que dootuñu am ñu mel ne sunu àdduna bi dootul jag parce que dootuñu am ñu mel ne le sànq laay liir histoire Saïd ibnu Amir aljub aljumahi ci ngoon mais gi ci benn paas boo xam ne Saad Omar daf koy yónnee xaalis bu bëri mu toog ci digg kër gi naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jabar ji dégg ko muy yuuxu jabar ji ne ko ku dee daw ñëw ku dee amirul muminin moo dee mu ne ko lu raw loolu ah jullit ñi la musiba dal seen kaw mu ne ko lu raw loolu waaw lan moo raw amirul muminin dee jullit yi musiba dal seen kaw lu raw loolu mu ne ko àdduna moo dugg sama kër pour yàq sama allaaxira àdduna moo ñëw sama kër pour yàq sama allaaxira jabar ji ne ko génne ko génne ko génne ko mu ne ko ndax dinga ma ci dimbali mu ne ko insha allah naa la ci dimbali mu ne ko xaalis lañ ma yónnee mi ngi nii dafa yaram dafa nar a yàq sunu allaaxira imagine leen xaalis kuñ ko yónnee tey fii ay mbokk yi kuñ fi yónnee woon waxuma la sax un million waaye cent mille rek waawaa nee day xalam lu li ngay njëkk a xalaat mooy tey dibi laay reere suba ma def lii suba ma def lii suba ma def lii xoolal ci waajoo xam ne moom mooy fa mu nekk xaalis ba ñu ko yónnee moom mooy amir mu jël xaalis bi séddale ko séddale ko séddale ko ba mu jeex pour ma gàttal leen ko sax du place bi mais xissa bi dafa am importance ba nga xam ne mu dajeeg Omar moo ko faloon foofu mu jiite ñooñu Omar dajeeg ñooñu ne leen waaw yéen ki ma seen seen gouverneur bi ki ma leen jox pour mu jiite leen moom su ngeen demee ngeen ne dëkk ba na ngeen ma recenseel ñu ñàkk ñëpp ngeen recensé leen ñu ñàkk ñi ngeen ñëw ma dimbali leen amirul muminin noonu lay def ki jiite jullit yi noonu nga war a def dem leen ngeen recensé ma ñu ñàkk ñi xam nga lu garaaw mooy bi ñuy recensé ñu ñàkk ñi dañ cee bind turu Saïd ibnu Amir te moom moo jiite Omar bi mu ñëwee mu liir liir liir ñu ñàkk ñi ba yegg ci Saïd mu ne subhanallah kii ban Saïd la ñu ne ko sunu amir mu ne yéen seen amir daa ñàkk gars yi ne waaw Omar jooy ba sikkim bi tooy parce que lu tax luñ ko yónnee rek mu joxe yéen fan ngeen ameetee ñu mel noonu man ngeen di amati ay ministres yu mel noonu ay préfet yu mel noonu ay gouverneurs yu mel noonu ay députés yu mel noonu ay sénateurs yi fan ngeen koy jëleetee lii ci lislaam rek la mën a am moo tax li may wax yenn saa yi sama xale yi du ñu ñoom du ñu yéen du ñu ñoom ñun du ñu ñoom ñoom du ñu ñun ñooñu kenn mënatu leen a dab parce que dañoo jëndoon àllaaxira jënde ko seen àddina dañoo jëloon seen àddina jaay ko seen àllaaxira àllaaxira moo leen gënaloon lépp waa jooju addunaam yëpp benn mbubb la am benn mbubb gars yi dañoo dem ci Omar boole ko ne ko kii daal day am bis boo xam ne kenn du ko gis journée bi yëpp du génn et puis am na bis boo xam ne balaa muy ñëw mu naaj et puis lu ñu gën a metti ci moom mooy jay jékki-jékki rek xëm gis ngeen li ma li tax man leen ñoom duñu ñun duñu ñoom léeg-léeg benn waay ci société bi génn dem président de la république recevoir ko audience mu boole kook ay nit fena fena fena fen yàq président bi tamit nekk ku dof bu nit ñëwee wax au lieu nga leerlu da ngay xëcc sa téléphone wala sa feuille rek daal ne diw mu ne nga ne ko folli naa la doo xaar sax mu ne lan la du bu lay naan lu may def sax nga raccroché du jékki-jékki rek gis këyit ñu ne ko folli nañ la xoolal gars yi dem nañ boole Saïd ci Omar lan moo leen metti ci moom ñu ne ñetti mbir dafa am bis boo xam ne kenn du ko gis te mooy amir bi bu jullee fajar balaa muy génn mu naaj te lu ñu gën a métti ci moom day jékki-jékki mu xëm ñett yooyu nag ñett yi ma wax xam ngeen fan ngeen di xamee tontu bi ah xam ngeen ko TSL TSL fa ngeen di xawee tontu bi xaar leen foofu xayaatu saxaaba foofu la fii tafsir Qur'an la incha allah jeudi ci guddi ak vendredi ci guddi vendredi ci suba gi yëpp journée bi sunu borom mu ne wa atul buyuta dikke leen néeg yi min abwaabiha ci bunt ya su ngeen di dugg ci kër jaar leen ci bunt bi wattaqullah ragal leen yàlla li ngeen lu mu ci teg wattaqullah mooy lii ma leen sant na ngeen ma moytu man yàlla ngeen def ko bu leen di indi mbir yu ngeen rafetlu seen bopp rek seen bakkan rafetal ko rek ngeen taaral ko rek ngeen bu koo def ci diini ji wattaqullaha na ngeen ragal yàlla laallakum ndax yéen tuflihuna ngeen texe allahu akbar amarahum bi taqwaahu yàlla digal na leen nañ ko ragal azza wa jal li yuflihu fi dunia wal axira ngir ñu texe àdduna texe àllaaxira nit munta am texe àdduna texe àllaaxira lu dul dafa ragal yàlla gis ngeen mbokk yi dara lorul jullit yi tey lu dul loolu ñu wax léegi mooy pas-pasu ragal yàlla moom la ñu manqué bu nit ñi ragaloon yàlla moo tax Omar ci société boobu mu doon dund jiite leen ñépp ñépp ragal yàlla ba Omar ñeme demee nekk président de la république ñeme dem ba ci benn ranu garab bu féex bu sedd ci jamono tàngaay garab gi féex Omar daal di simi ñaari dàllam carax yi mu soloon daal di koy njaganaayoo tëdd di nelaw est-ce que di ngeen am président bu mel noonu président bu dem Sandaga lal si waxuma sax mu tëdd ci karo yi mais mu lal si jaare wala mat la di nelaw seen président yi ñeme nañ ko Omar defoon na ko benn waaye jóge ci àll ba ñu yónni ko demal nga xoolal ñu Omar mooy kan mu ñëw dugg ci Médine dem kër buur bi fu mu yegsi rek ana Omar kan mooy Omar ñu ne ko jaaral mbedd mi jaaroon na nii sànq muy wër di wër di wër ba egsi ana Omar benn koñ ñu ne ko dafa mel ne romb nañ ko feew ci benn garab muy nelaw waa ji ñëw fekk président de la république amirul muminin njaganaayoo ay dàllam njaganaayoo loxo ndey jooram tëdd di nelaw mu ñëw xool ko ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta xakamta atte nga wa adalta nga maandu bi nga atte bi nga maandoo wa aminta nga am kóolute bi nga amee kóolute wa nimta nga ñemee tëdd fii nelaw hakamta wa adalta wa aminta wa nimta ndeysaan moo tax man leen ñun dootuñu am ñu mel noonu adduna bi yàqu na parce que buur yu mel nii dootuñu amaat nit ñu mel noonu nii ragal yàlla dootuñu amaat ragal yàlla li muy indi ci société mooy société bi lépp normal tey Sénégal li ñu la ñu am problème ay milliards lan ngeen dégg nguur gi passé jóge fi lan lañ leen wax li leen leen di tuumaal dañoo sàcc alalu xeet wi ku ragal yàlla nag moom dafa xam ne ëllëg yowmal qiyaam dañ koy laaj alal ji fu mu ko jële ak fu mu ko dugal an il an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu foo jële alal ji foo ko dugal dañ la koy laaj loolu moo tax doo ci jël lu bari wala Saad ibnu Amir bañ ko joxee mbuus bi lu mu doon wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jabar ji ne ko lu xew amirul muminin moo dee mu ne ko lu gën a bon loolu ndax jullit ñi musiba da leen a dal mu ne lu gën a bon loolu benn mbuusu xaalis bu ñu la yónnee la ilaha illallah xam ngeen ne ñaari nit ñi du ñu benn de ñaari société yi du ñu benn kon mbokk yi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala lii moo doon dars tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu